عليك صلاة الله ثم السلام mbokk yi comme ni ngeen ko xàmmee kii mooy Mouhamina ibnu Cheikh Ibrahim Niass waaye ñëwut fi ci tur boobu mais mi ngi fi ñëw en tant que président ansaarud Euh, ñu ñëw pour lan ñëw Taïba Niassène Taïba seen xam ngeen mooy fan am na tamit lu fi xew wala boog lu fi waaj a xew mooy gàmmu gi nga xam ne moom la ñuy defal baay fii ci dëkk bi nga xam ne fii la juddoo di ko fàttaliku euh, dama gis ne alxuraan am na lu mu wax loo xam ne nii ñépp war nañ cee taxaw mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla daf ko wax ne ko laa uqsimu bi haazal baladi wa anta xillun bi haazal baladi maa ngi gëñ te borom xam-xam yëpp ñu ne gëñ yàlla bu gëñee ci ci mbindeefam moo xam barab la wala nit la wala lu mu mënti doon pour wane màggaay bi loolu muy gëñ am looloo tax yàlla nag ne yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi gëñ ci dëkk bi nga juddoo kon màkka màgg na yàllaa ko wax waaye mu ne ko waaye nag rawatina jamono bi nga xamee ne nii wàcc nga ci dëkk booba kon am na jëmm joo xam ne wàcc gi mu wàcc ci dëkk ba dana jox dëkk bi barke su ko amutoon su ko amee dina fekk dana yokku barke ba kon yàlla moo tudd barab bi nga xam ne fa la yonent bi juddoo kon mooy ñu déggee ci ne képp koo xam ne doona yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga fa nga juddoo yi tamit barab la boo xam ne yàlla tuddaale na ko kon jar barab bu ñu war a ziyaare la barab bu ñu war a màggal la waaye tamit bési juddu bi tamit comme wax na ko ne ko yow ba mu ko joxoñee rek la joxoñ juddoom kon tamit juddu bi tamit lu ñu war a màggal lu ñu war a fonk la lu rëy la waaye ñun ñu di ci profito dajale nit ñi ñu joxonte loxo ci wàllu mbokk ñi gëj a gisante gëj a gisante ñu xamante ñi xamantu xamante xamante wutoon xamante ñi gëjoon a gisee gëj a gisante ñu joxante loxo ci kaw mbokk wan yàlla ne ko ñun mbokkoo rek moo ñu tax a jóg waaye nag nettali ñu dara ci dundi bàyyi ak jaar-jaaram ak euh, liggéeyam pour ñu xam ne lii mooy suñ dono ñun lii ci lañ war a taxaw pour liggéey lii mooy bés mooy importance su bés bi nga xam ne ci lañ ci la ñuy ñëw fii parce que nit ku nekk Sénégal am na benn bés bu ñuy tuddee indépendance fête indépendance eh, fête mooy lan jour bi nga xamee ne Sénégal génn na ci loxo tubaab yi di jéemal boppam pour avancer gore te gore mooy li ëpp solo ci nit ki d'abord pour nga nekk nit da ngay gore moom sa bopp libre ci say acte libre ci say choix ñu ne Sénégal at mu jot dana financer ay millions yu dul jeex pour feete bés boobu dëgg la waaye kon ñun bis biñ libéré dëgg dëgg dëgg dëgg mooy bés biñ ñu envoyé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñun nag yonent bi sallallahu alayhi wa jotuñ ci moom directement bàyyi moo ñu jotale ci moom te yàlla nee na képp koo xam ne doo gërëm ki jaar ki xéewal gi jaar ci loxoom ba ñëw ci yow boo ko gërëmut gar jarut nga may gërëm kon ñun buñ tëboon rek bugg dem ci yonent bi yàlla du nangu bu buñ tëboon rek bugg a dégg dem ci Cheikh Tidiane yàlla du nangu parce que bàyyi mooy suñ buntu moo tax ñu bëgg yonent bi moo tax ñu xam ko moo tax mu jaral ñu lu nekk moo tax moo ñu ñu ñu ñu ñu ñu di ko liggéeyal moo tax ñu xam ko kon kooku ñun moom daanaka ci moom la ñu war a yem parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax euh, borom xam-xam yi mag yi sufiyanke dañ koy tuddee alxijaabul azam alaaji Abdoulaye mu ne laaj naa bàyyi luy xijaabul azam mu ne ko xijaabul azam mooy mooy kiiraay gu mag gi nga xam ne moo dox diggante nit ñi yàlla mu ne ko loolu li muy tekki mooy nit du agsi ci yàlla ci yonent bi ngay agsi boo agsee ci yonent bi sa sa jaan wàcc na kon ñu ni tamit duñu agsi ci yonent bi ci bàyyi la ñu agsi bu ñu agsee ci yonent bi ba bàyyi suñu jaan wàcc na ñu ñëw fii nag pour xool si organisation bi xool commission yi xool ni muy doxee doon xool réunion yi ak liñ fi jot a def ak état bi réunion yi ñu def ak moom lim ñu dig service yi lim ñu dig ne danañ ko def ñu xool liñ ci defagum ak liñ ci defagut lan la loolu nag xaj na am na ci loo xam ne ci rapport lañ koy def après pour tasaare ko mais daal lu ci mënti xew ñi ngi ñaan état bi ne ko daal xam naa fi mu ne moom xaw ma heure bii moom ku koy waxi tamit da ngay wax rek mais yoonu bii jëy si jëm si Taïba Niassène gi nga xam ne mooy dëkki baay bi dëgg dëgg xaj na chauffeur si ñoo góorlu prudent ak ñaan yi ak dal mais normalement état. Euh, euh, yoon bi ni mu mel ci xat ak ak ak yooyu bu sëfoor si teyut mën naa indi problème loolu ñi ngi ñaan ñu bàyyi bu ñu bu gàmm gi paasee nañ ci xalaat bu ñu koy yokkee ci deneen sax ñu yokk ko daal en tout cas ba yaatu ba nga xam ne nit mën nañ cee jaar service yi nga xam ne tamit li ñu waxoon Azurut nag man dëgg dëgg mënuma leen a ñàkk tudd parce que bugguma bugguma woon a tudd kenn mais mosuñ leen a ñàkk tudd parce que dëgg dëgg at mu jot dañ ñuy wax ne danañ def nangam danañ def nangam mais bu gàmmu gi jeexee bu gàmmu gi sësee dañuy gis ne vraiment euh, liñ ñi wax euh, duñ ko gis loolu man duma ma sànni kati xeer buggumaa def loolu mais nag dama teewee gàmmu gi teewee waat euh, gàmmu tey ba teewee waat ko moo tax daal dëgg-dëgg nañ ñu dimbale liñ ñuy wax ñu wax ñu lu ñu mën a def te di ko def li liñ mënta def ñu ne ñu mënuñ ko def xam nga li xew mooy ñun dañoo nekk ci état ci réew moo xam dafa am état te bàyyi dafa respecté woon état ba nga xam ne mun naa leen cee jox benn anecdote Baye bëgg na dem Cameroun may nañ ko jox nañ ko visa ak jox nañ ko lépp mais biñ ko soufflé ne ko président bi sawarut sa ñëw fa dafa fomm ñu ne ko lu tax mu ne man du dem ci réew moo xam ne président bi sawarut ci sama dem fa parce que conséquences yi du ñëw ci sama kaw mais mën naa ñëw ci kaw samay taalib kon Baye noonu la respecté woon affaire administration Baye moo njëkk a wax depuis 1960 wala lu ko jiitu ne jubóog sa préfet moo gën juboo sa gouverneur. jubóog sa gouverneur moo gën jubóog sa ministre jubóog sa ministre moo gën jubóog sa président xam nga boobu décentralisation yi amagutoon fi mu ne nii nit ñëpp xam nañ ne jubóog gouverneur moo gën jubóog président parce que information yi dem ci ci président yëpp ci gouverneur lay jaar luy jógee ci président ñëw ci moom lay jaar loo ko wax gouverneur la koy laaj donc gouverneur su la waxee ne yaa baax gouverneur euh, dafa dafay numtale mille neuf avant 1960 la ko bàyyi waxoon kon xam ne ñu ngi ci réew moo xam ñun moo tax ñun dañoo respecté état jox ko cëram mënoon nañoo jël engagement taalibe bàyyi ubbi ko yóbbu ko Nigéria yóbbu ko tey boo muy tuut foofu lañ jëm si wax taalibe yi ne leen gàmmu tey baa gaa ngi nii taalibe yi ñoom ci seen bopp ñu jël engagement régleel ko seen bopp parce que ci misaal tey bàyyi assistance médicale léegi dégg naa ci réunion bi ñu ne euh, gàmmu yu gàmmu yi ba ci poroxaan ak yooyu état bi ay infirmier la fay yónni xeebuñ leen waaye bàyyi assistance médicale moom dafa indi ay ay ay médecins yu mag ay spécialistes ay nangam donc ñun manqué wuñ loolu mais nag comme ci république lañ nekk ci république lañ nekk il faut ñu wax ak état bi wax ko ne ko ñu ngi organiser mu ñëw appuyer ñu parce que noonu la la la la la la affaire bi war a demee mais yalwaanuñ tey tamit am nañ taalibe yoo xam ne mën nañ ko kon nag tamit nañ xam ne loolu rek la maanaam dañoo respecté réew mi rek respecté ni nga xam ne mooy doxalin réew parce que loolu la ñu bàyyi jàngal. waaye manqué wuñ ku ñu mën a defaral manqué wuñ ku ñu mën a euh, kiyal kon nag ñoom i tamit nañ ñu bàyyi xel euh, te ñu ni tamit wax dëgg yàlla ñu ngi am euh, xalifa boo xam ne sànnikati xeer yi mel ni man yëpp fi ne ñoo sànni xeer parce que dafa farak kilifa gi ñun ñu respecté ñu respecté loolu ba li ñu am ci lu ñu naqadi yëpp dootuñ ko wax noppi ngir bañ a sëriñ bi wax dara ñun ñu wax safaan waaye nag xol lañ yore dañuy tëj suñ gémmiñ ñi mais nag li ñu neexut neexuñu waaw wasalaamaaleykum wa rahmatulah صلاة الله ثم السلام فطرها